maa ngi tudd Lat Dior Dieng nekk chef de cabinet du maire de la commune de Ndiéyène Sirakh Serigne Fallou Fall. waaw référendum bi ni mu tëddee yaakaar naa non bi moom gagné na ko largement ndax boo xoolee euh, oui bi vingt vingt cinq pour cent la fa am te vingt cinq pour cent yooyu li ko war a sax mooy parti socialiste bi nga xam ne dañoo voté wii ak AFP donc kon foofu mën nañ ne APR moom amul dara ci commune Ndiéyène Sirakh. waaw loolu moom yaakaar naa ay tuuma la. waaye ku xam sëriñ Fallou Fall xam ne moom ab dërëm dërëm jotu ko ci euh, nguur gi ngir mu jëfe ko ay campagne ndax moom li nga xam ne moom mooy melokaanam ak ñi nga xam ne noonu la àndee ak ñi nga xam ne ñoom lay ñoom lay liggéeyal moom du nangu sax laal xaalis du nangoo tudd xaalis lépp lu si am bu dee jot xaalis ñun lay yebal ñun ñoo koy jël ñun ñooy diriger campagne yi kon moom amul dërëm boo xam ne bii jot na ko ndax boo seetloo sax ñoom woon nañ ko ngir jox ko ñetti millions ak ceeb waaye da leen koo bàyyil ndax loolu moom du jikko kon nag moom mi nga xam ne mooy tuuma ne Serigne Fallou faal dañ koo jox xaalis ngir mu campagne ko mu mu mu jëfale ko neneen moom moom la ñuy war a laaj ñetti millions yi nga xam ne dañ ko doon jox Fallou Serigne Fallou faal ak ceeb bi te moom mu gàntal ko moom mu jël ko moom na ko leeral askanu commune Ndiéyène Sarax ba xam xaalis boobu ak ceeb boobu fan la ko dugal. loolu dinaa ci joxe firnde ndax Augustin def na liggéey bu rafet ci commune Ndiéyène Sarax waaye nag liggéey bu rafet boobu yëpp mu defoon maanaam responsable may sa Diouf boobu yàq na lépp ndax ak yara dakoom maanaam ni muy doxale àndul ak sutura àndul ak teggin te tamit moom respecté wul sax nit ñi nga xam ne ñoo nekk commune Ndiéyène Sira kon loolu nag moom la fa Augustin defaroon ba mu ratax moom ñëw na yàq lépp. askan wi li ñu leen di dénk mooy xanaa sant leen d'abord gërëm leen ci ñi nga xam ne noonu lañu génnee ñoom ñëpp euh, voté fi nga xam ne foofu mu la le maire Fallou Fall euh, dëgmal te mu xool ne foofu moom mooy njëriñam. kon ñu ngi leen ci sant di leen gërëm muy responsable muy militant muy sympa sympathisant ci ñëpp ñoo xam ne jóg nañu le le 20 mars dem voté ji ñu ngi leen ci sant lu bëree bëri xanaa li leen di dénk ñoom tamit mooy di leen xamal ne leen foofu ñu jàpp foofu rek la ndax nag moom boo xoolee équipe municipalité bi fi nekk à l'occurrence te Serigne Fallou Fall jiite ko doxal lu dul intérêt population bi doxal lu dul développement commune bi kon yaakaar naa képp koo xam ne kii yaa ngi dëkk ci commune Ndiéyène Sirakh bëgguloo lu dul développement commune bi kon dañu dañu dañuy topp ci ginnaawam ànd ak moom ci li nga xam ne mooy mébétam pour soqali commune Ndiéyène Sirakh euh, maa ngi tudd Papa Ngom nekk trésorier comité électoral Ndiéyène Sirakh ah suñu campagne mun naa ne ni mu tëddee mooy li ci ëpp ñun ay instruction rek lañ doon jot pratiquement boo xoolee trois journées de campagne lañu def te li ci monsieur le maire génn sax bariwul mais ñun slogan bu ñu doon jàllale mooy euh, point 15 bi nga xam ne moo nekk ci projet de loi bi point quinze bi ñun dañu jàpp ne dëppwul ak diine ndax lu tax intangibilité lañ ciy wax intangibilité nag ñun dañu jàpp ne yàlla rek moo ko woyoo moo tax suñu campagne fépp ci foofu lañ ko accès ça tourne autour du point quinze qui parle de l'intangibilité de la loi. foofu rek lañ ko kaloon ni plus ni moins. Euh, sama kàddu gu mujj mooy euh, damay euh, félicité encore suñu électeurs yi di leen wax ne vraiment ah ñu ànd ak Sëñ Fallou li mu bëgg mooy njëriñu gox bi ñu ànd ak moom topp si moom te xam ne fu mu ñu jëmale foofu la mooy suñu njëriñ tamit di leen sant di leen gërëm parce que li ñu def am na solo trop pourcentage bi rafet na trop ñu ngi leen sant di leen gërëm donc malgré que ñetti parti au pouvoir ñu ngi ñu doon songu waaye on est sorti vainqueur ah ak benn euh, taux de réussite bu am solo kon vraiment ñu ngi delloo di leen remercier bu baax a baax.